képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugale ci dana ko am en exclusivité moo di rek di leen sant di leen gërëm na li mu waxoon sëñ Cheikh Thioro mi wax na ko nee na liñ ciy dolli maam Cheikh Anta. nee na maam Cheikh Anta. léppay sëriñ lépp lépp lépp sëriñ bi la. nee na lépp sëriñ Touba la. sëriñ bi lépp moom la. sëriñ Touba it lépp maam Cheikh Anta la. sëñ Gaawaan. maam Cheikh Anta sëñ Gaawaan. way way juróom wu sell wu tedd wa. way juróom wu sell wu tedd wa. di soxna Astu Mbàkke. di soxna Astu Mbàkke. lii lépp moo ko fàggul. nee na lii lépp moo ko fàggul. Anta Ndiaye jooju ñuy wax. nee na la ca dolli ko nag Anta Ndiaye jooju ñuy wax. ñu koy dàkkantale. ñu koy dàkkantale. dafa amoon dafa amoon. benn law bépp maam Mor. benn law bépp maam Mor. keroog bi sub keroog bi sub dëkk dikk ba. keroog bi sub dikk ba. keroog bi sub tudd ba. keroog bi sub tudd ba. Anta Ndiaye. Anta dikk na ko. dikk na ko. soxna Astou Dey dama bëgg nga ma ko. soxna Astou Dey damaa bëgg nga ndayale ma ko. ndax boo ma ko ndayalee day. ndax boo ma ko day. dana dund. dana dund. dana am barke. dana am barke. te dana fi yàgg. loolu mooy loolu mooy Anta eh, nee na loolu moo andi Anta Ndiaye ji. waaye soxna Aïssatou Mbacke la tudd. mu ñaan. te wax ne Daaru Salaam Touba Daaru Minam Daaru Salaam Touba Daaru Minam Daaru Salaam Daaru Salaam Touba Daaru Minam دهني الذي كفى الخطوبة إلى ديوري سمى وحي طوبى أشكر إن شافي بالصلاة حميت من يصمني من الدرر fii si Touba mbokk yi saa su ngeen itteewatee pressing ak blanchisserie bu méngoog jamono si ay machines yu xarala personnel bu xam wàll wi seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké si Touba nekk si usine glace route de Nindi sa càmmoñ si wetu pharmacie bi jàppale ni nag bu ngeen fi accès da ngeen fi fekk soxna Muslim Mbacké mooy la responsable moo leen di taxawu ak équipe ba mu àndal doon équipe bu xarañ professionnel xam wàll wii mbokk mi bu fekkente ni nag da ngaa bëgg fóotlu ci pot bu mucc ayib seet loolu waaye neex mooy yëre la bu ànd ak couleur da koy gën a renforcer couleur ba day gën a rafet ngay seen muy gën a éclaté bees tàq muy rouge wala bleu wala jaune doo si am dara lu la naqat yi bu fekkente ni également da ngeen am yëre boo xamante ni dafa am tache tache nag moom mën na bàyyeekoo si lépp lu ñu jëfandikoo wala encre bu tuuru wala matière bu mën a doon maanaam daal yëre bi moom bu gàkkee jàppal ni ak sunu ay produits fii si seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké da ngay am la nga bëgg da ngay kontaan am benn trace lii nag mbokk yi ñoo xam wàllu wi pressing bi mbokk yi mën nañu liggéey xam nañu wàllu wu ni mel te nag boole kook set ak sel mën na nag liggéeyal ku nekk bàyyi xel loolu kilifa yeeg dëkk bu sell bii di Touba bu fekkente ni seen biir kër da ngeen am nag ay dara ay rideau wala jumtukaay bu ngeen bëgg mu seet lépp a yemb suñu ay machine xarañ na suñu personnel naka noonu kenn du ñoom waaye nag la gérante soxna Muslim Mbàkke moo leen di gàttandu taxaw si lépp li ngeen bëgg yamuñu foofu de dañuy passé ba mu am ay pli ay boo amee sa trois pièces indi ko fii wala nga am sa xaftaan jàllaaba yëre jigéen bu mu mën a doon grand boubou taille basse kulim ju mbokk yi boo fi ñëwee doo ko réccu dañuy ba mu saf sàpp boole koog yëre bi bu pare day xeeñ neex ndax nag fa jaar produit yoo xamante benn effet secondaire sa biir yaram da koy gën a préserver day gën a dëgër day gën bees gaaw gaaw woote si 77 514 34 30 77 514 34 30 bu ngeen fi accès xam ni seen jafe-jafe si wàllu setal jeex na bis ñi ngi tey